وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد موكلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غنا بسنت يالا يلسي النبي عليه الصلاة والسلام بسنت يالا من يمكن كاتم ما يفك بين دفوتان فجر دو الحمد لله رب العالمين الحمد لله دائما أبدا الحمد لله كثيرا الحمد لله كل حال وعلى يلسي النبي صلى الله عليه وسلم موكلين النبي في سيدار محمد صلى الله عليه وسلم دي جانا ba léegi ñu continuer suñu waxtaan bi commencé woon mooy doomi aadama yàlla def ko binda mu am eh, boppam wala mu moom boppam muy li nga xam ne mooy xurriya mooy freedom waaw ba tax na doomi aadama ak xataa yow su yàlla jiitale si def lañ jiitaana la ak foo mën a jiite nag nit ñi nekk sa ron waruñoo nekk sa jaam da nga war a bàyyi ku nekk nekk si li nga xam ne mooy eh, boppam waaye yëpp nañ ko teg si li nga xam ne mooy jub mooy li mooy baax li nga xam ne mooy eh, jàmm nga xam ne ñëpp mun a nekk si jàmm ku nekk rek li nga xam ne mooy sa àq ak sa yelleef nga jot ko loolu tax Omar Omar ibnu Xataab radiallahu taala anhu muy wane ne doomi aadama Omar Omar mooy kan Omar mooy nga xam ne mooy ñaareeli xalifa yonte bi alayhi salaatu wasalaam waaw nga am Aboubacar Sadiq mooy xalifa bu njëkk bi nga am Omar bun Xataab nga xam ne moom ñëpp xam nañ Omar mooy kan bam duggee si islaam ndik lu tax mu wax wax ji balaa moo dugg si islaam yéefari Màkka yi dañ notoon julliti dañ leen notoon torop sax bundu xatal leen ba tax sa jullit si daan jullit si dañoo nëbbu ñoo nooda dañoo fata seen gémmiñ bi bugguñ nooda bi gën a si biti lan ragal yéefar yi ragal yéefar yi màkka loolu te waxtu bu nekk rek dafay soxla jàmbaar koo xam ne dafay taxaw diine taxaw islam Omar bun Xataab bam mu duggee islaam wala ba mu duggee si islam ba mu duggee si Xataab ñëw fekk yonent bi salaa daar alqam ak doole bi duggee si si كيم صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب من قدام يو بردوك سيدنا الإسلام ما يو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صحابة يبدأ لنا الله أكبر الله أكبر عمر بن الخطاب يقول صلى الله عليه وسلم نبلال نودال نجولي نودا بلال نودا دي فتا جيمين بي بامبري عمر نه يونتبي عليه الصلاه والسلام أنحن على حق ndax ñun si dëgg lañ nekk ndax diina biñ nekk nii diina dëgg la yonent salaam mu ne ko maa ngi waat si yàlla bi nga xam ne moom suma bakkan a kañ Omar ñun si dëgg lañ nekk Omar ne saxaaba yi génn si kaaba gi la ñoo jullee waaye duñ nëbbooti julli mukk Omar nekk ñu def ñu jàppalan tiyante tiyante loxo Omar nekk si cat bi Hamza nekk si cat bale mu ne acca ñu nga laa ilaha illallah utali kaaba ga yéefari bu dégg ne ah jullit yaa nga dem si kaaba gi rek nga gàddu sa jaasi génn si ne an bu génn ku génn si rek ba yaakaaroo Omar rek dal di daw ku génn si rek ba yaakaaroo Omar rek dal di daw ne Omar bun Xataab dugg si islaam Omar nag si la wax wax nga xam ne moom la buga a leeral ne ken wortanno ay domi adama di len jaamlo walla nde def ay jaam te feka sen wajuri den len jur ñu neka ñu gore ñu neka ay gor ken warudena jaamlo omar bun xataab mu ne matta istabatum nnasa waqad waladathum ummahatuhum ahrar mu ne naka la ñoo jële ay doomi adama di leen jaamloo di leen def ay jaam te fekk seen waajur yi ñu ngi leen jur ñu nekk ay góor ñu nekk ay góor loo tax a gis léegi-léeg yeneen njiit ñu toroxal ay góor yoo xam ne seen waajur yi biñ leen jure ay ay góor lañ waaye ñu ngi leen toroxal di leen def ay jaam léegi-léeg ñu dugal la si loo xam ne sax da ngeen ne ah kii de moo góor a di kii moo góor a di kii moo gërëy di ndik lan lañ ko forcé walla lañ ko dugaloo wala lañ ko def defloo te xam nañ ne kii definitely bu doon ne ku sàmm kóolóoreem wala du ko def bon nit bu la yàlla jox doole nga jël doole boobu di ko teg ci kaw jaam yi nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala ñu ñëpp moo ñu binda ñu ñëpp ñu nekk ay jaamam waaye ñun ñëpp yàlla subhanahu wa taala def ñu ñu nekk ay gor loo tax yàlla ne walaw shaa allahu la amana man fi naasi la amana naasi kulluhum jamia walaw shaa allahu la amana naasi kulluhum jamia loo tax mu ne bu soboon yàlla subhanahu la taala doomi aadama yëpp gom yàlla waaye yàlla bàyyi nañu suñ bopp bon kenn warta lor ken kenn warta not kenn ken ku nekk rek dañ ko war a bàyyi si boppam luy mooy àdduna ni la yàlla mooñee àdduna mooy ne doomi aadama bu nekk rek yàlla subhanahu wa taala daf def nga nekk gor kenn waru laa jaamloo waaw waaye tamit nit ki doomi aadama tamit bul xeeb sa boppa benn nit ki di la teg loo xam ne mbiri jaam la wala di la jaamloo déedéet ku nekk rek war nga am sa ñoo eh, xam sa boppa xam yaay kan xam koy doon bul nangoo nekk jaami kenn ku dul yàlla subhanahu wa taala nga xam ne ne wa maa xalaqtul insa wal wa xalaqtul jinna wal illaa illa liya'buduni mooy yàlla mi nga xam ne dama bind jinne ak doomi aadama pour ñu jaamu ma pour ñu ñëpp jaamu yàlla lañ duñ jaami kenn bon yàlla ñu yàlla safal damm yàlla teg ñu si yoon siraatul mustaqim yàlla ñu nekk jaamu yàlla xaqan xaqan yàlla buñ jaamu keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala yàlla bu ñu kenn not bañ nekk jaamam yàlla subhanahu wa taala teg ñëpp si yoon siraatul mustaqim def ñu ñëpp ñu nekk ay góor آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين